أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تسوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñuy nuyu mbokki Sénégal gépp di nuyu mbokki diine yëpp xam ngeen ni ñoo ngi ci weeru koor yi weeru koor yi nag ñu ñëw fii ci dëkk bu sell bi di dëkk maam Ahmadou Ndaak sekk di Canaba Seck fekk fi xalifa bu baax bi di Cheikh Ahmad Tidiane Seck ak doomam Baye Diop Seck mu am ay kàddu yoo xam ni xalifa bi war na koo yëkkati jëmale ko ci askan wi jëmale ko ci diine ji jëmale ko ci mboolem kuy jullit muy ay muy ay kàddu yoo xam ne day ñaax ay kaddu yoo xam ne tamit ngir ñu defaraat suñuy toogaay ki nga xam ne nag moom mooy jël kàddu gi ci turu xalifa bi di Baye Cheikh Tidiane Seck di Baye Diop sekk di doomam ñu di ko jox kàddu gi alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala sayidina muhammad alfaatihi lima uxliqa walxaatimi lima sabax naasiri alxaq bilxaq walhaadi ila siraatika almustaqim wa ala alihi xaqa xadrihi wa miqdaarihi bokki jullit ñi nga xamante ni ñu ngi janoo ak ñun di nu diglu di seetaan ñu ngi yëkkati kàddu yu nuyoo ak ndokkeel yu jóge ci Serigne si Ahmad Tidiane Seck xalifa général bu Thiénaba jëm ci mbooleem jullit ñi nga xamante ni nekk nañ ci àdduna bi jëm ci mbooleem jullit yi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi te ñi ci jiitu di kilifay diine yi nga xamante ne ni tooge nañ jotaay bu mel ni bii mu tooge nekk ay xalifa général ci seen jotaayu maam comme lim bi ñu ko defee day manqué moo tax rek ñu tënke ko noonu boole ñëpp rek képp koo xam ne kilifa nga ci jotaay ba nga nekk sa jotaay maam sëriñ bi mu ngi lay nuyu di la ndokkeel ci weeru koor wi di weeru teraanga ñeel jullit ñëpp sunu boroom joxoon ko yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni alquran day wax ni yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min xablikum laallakum tattaquun ni nga xamante ni farataale na ko koor ci yonent bi ak xeetam suñ boroom wax ko ni ko farataale woon naa ko comme ñi la jiitu woon ci ñoom mu nekk nag weeru ngëneel nga xamante ni nii yonent bi day wax ni sallallahu alayhi wa sallam awaluhu rahma wa wasatuhu maxfira wa aaxiruhu xitxun min an naar weeru koor la woo xamante ni nii buñ ko duggee rek njaalbeen gi ñëpp dañu daal di nekk ci yërmande sunu borom sunu demee ci digg bi ñëpp dañu daal di am njéggalu sunu borom suñ demee ci mujj gi ñëpp dañuy daal di gore ci sawar mu nekk weer woo xam ni waxtu wu teroo sunu borom day yebal malaayika mi nga xam ni yor na caabi sawara ni ko demal nga tëj ko ndax xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kado bii ma leen jox muy weeru koor na mu ma cee mbugal kenn ku nekkoon sax ci mbugal ci jamono yooyu dañ la ciy daal di génne jox caabi ki nga xam ne yor na caabi àjjana ñi ci nekkoon ci métit yëpp nañ daal di dem fekk biir àjjana ña ñi nga xamante ni nii ñu ngi bàyyikoo àdduna di ñëw barsàq nañ daal di dem direct aljana weer woowu nag kon kadolo boo xamante ni nii yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax sunu borom jox ñu ko mu dugalaat ci yeneen ngëneel itam yoo xamante ni laylatul xadri xam ngeen ni ci la nekk te sunu borom day wax ni laylatul xadri xayrun min alfi shahrin guddi googu di guddi gu am daraja du guddi gu am doole moo gën junniy weer te junniy weer ñi nga xamante ni nii dañuy def mental dañ koy calcul ci juróom-ñett fukki at ak ñett yoo xamante ni nit ki dund na ko jaamu ko boroomam te tooñu ko ci te lam ko jaamu mu nangul ko ko jàpp naa ni loolu ku farluwul woon ci jaamu yàlla sax ba weeru koor woowu ñëw te weer wi ñii ngi koy natt ci ñaar fukki fan ak ñaar fukki guddeek juróom ñaar pour def ci laylatul xadri waaye nit ñu baax ñi moom dañoo bëgg rek boo gisee yonent bi sallallahu alayhi tudd nu bis bi ak guddi gi dafa bëgg rek boo xasee dugg ci weer wi nga bañ a jëlal benn bis boo xam ni farlu woo ca ci sa digg ak sa borom farlu woo ca ci wattandiku tooñ sa morom farlu woo ci ci ni nga war a sàmmee sa koor sa làmmiñ sa bët say nopp ak say tànk ak say loxo nga sàmmee ko noonu soo matalee koor gi yëpp ci ay ngëneel rek di nga daje ak guddi googu te guddi googu ku dajeek moom rek texe ñeel na la ndax jaamu yàlla goo xam ne juróom-ñett fukki at ak ñett jaamu nga ko tooñoo ci sa borom mu nangul la sa jaamu defe naa ni àjjana jooju ñeneen sax ñoo ciy xaj du yow rek yaa moom kon nag sëriñ bi mu ngi soññ ñëpp ci ñu gën a gën a góorgóorlu ci jaamu yàlla jaamu yàlla moom naka jekk ajuwul ci weeru koor rek waaye bu weeru koor ñëwee nag su fekkee benn nga doon def am am téeméer léegi soo defee téeméer benn da ngay am junni dañ la koy fulal comme ni nga xam ne boo ci defee safaan baat noonu lañ koy fule boo defee ngëneel itam noonu la noonu lañ la koy fulale kon mu ngi soññ ñëpp naka jekk ni mu daan soññee ci nit ñi gën a góorgóorlu jaamu seen borom gën a wattandiku tooñ seen moroom nañ gën a góorgóorloo noonu ci gën a jaamu seen boroom ci saraxe ci jàng alquran ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci def istixfaar xam ngeen ni jamono bu ne mu ngi santaane nit ñi di def istixfaar 1947 yoo xamante ni ni day wax toujours ni suñ la laajee foo ko teg boo adatee baat bi rek da lay daal di indil 1947 jamono bu ne ak tànt bu mu dem ak bu mu dem ak rajo bu mu wax rek dina ci yëkkati kàddu yooyu ngir bëgg ñëpp yàlla jéggal leen ñu am àjjana yi àdduna ak ju àllaaxira bu dul loolu sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na suumu tasiqu na ngeen woor ndax ngeen wér te gis ngeen ni jamono bi wére di bari na àdduna bi sax la daj foo fekk nit rek bu la waxul lu koy mitit ma ngay woyaale dara te waxtu nit dee yëg dara ba dugg ci weeru koor jéem a ñett ñetti woor rek bu ci amee ñaari lam yëgoon ci yaramam wala ci ay bëtam ak lu mu manti doon day daal di gis ni wàññiku na wala wér na ndax waxyu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma yantihu anil hawa in huwa illa waxin yuuha moom du waxee ci bànneexu bakkanam mukk lu mu wax rek ci ndigalul borom bi la ko waxee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam weeru koor bu musaana dugg si bañ toll ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci bis ci tool yi da daan jël njaboot gi soxna yi doom yi ñépp da leen di gurgur yóbbu leen ca jàkka ja ñu ànd di jaamu yàlla di def salaatu taraawix guddi gi yëpp ñu àndandoo ko di ko jaamu seen borom te xam ngeen ne alxuraanul karim bi nga xamante ne nii ku jub ci nga juboo képp koo xam ne gindiku nga ci nga gindikoo ku ko topp topp nga yonent bi sallallahu alayhi wa waaye ku ko bàyyi wàcc nga yoonu yonent bi ci alxu ci koor gi lañ ko wàcce woon sëhru ramadan alladi unsila fihi alquran huddan linnaas kon sëriñ bi mu ngi gën a soññ nit ñi ci jàng alquran ci def ay istixfar góorgóorlu jaamu seen borom te yonent bi nee na man saama ramadaana imaanan waxti saaban xufira lahu ma taxaddama min zanbik képp koo xam ne dugg nga weeru koor wi sellal ko taxaw ca taxawaay ya nga ci war a am def ko ca sun borom jéggal na la mboolem bàkkaar boo xamante ni jiitu woon na ci sëg dund te sun borom kum jéggal sa bàkkaar yi jiitu woon rek du ndogu ni jéggal na la ya ca kanam waaye njéggalul sun borom daa bokkut ak njéggalum kenn ndax am njéggalam moom day landi kon sëriñ bi kàddu yooyu la di waxoon ni mu ngi koy ñaax nit ñi di ko di ci feddali digganteem ak kilifa kilifay diine yi nga xam ne baat bii mu yore tey ji moom la sëriñ siidi Muxtaar mbakke yore ca Touba moom la sëriñ si Ahmad Tidiane si yore ca Tiwaawan moom la euh, sëriñ Abdoulahi Thiaw yore ca Laayeen moom la maam Bu Kunta yore ca Njaasaan moom la sëriñ si Ahmad Tidiane Ñas yore ca Medina Baay moom la Sidi Ibrahim Ñas yore ca Lewna ak ñi nga xamante ni mboolem këri diine yi nekk ci biir réew mi ku lim doo matal waaye buñ limee ñooñu te ñu bokk diine ji bokk seen borom bokk rasulullah bokk alxuraan dinañ mën a yóbbaale ñooñu ñëpp ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal yàlla ñëpp di sant itam Sidi Lamine Niass mi nga xam ni euh, sëriñ bi rafetlu na lii nga xam ni jëkkewu ko tey mboolem këru diine yi waxuma weeru koor waaye lu ñu xew la rek gratuite la koy def seen digg ak ñoom amul lum leen cay laaj amul lum leen cay sas loolu nag te te ci islaam rek la ko jëme kon sëriñ bi mu ngi koy sant ci loolu di ci yóbbaale mboolem këri diine yi nga xam ne noonu lañ sant Sidi Lamine Niass ci taxawaay yi muy def ci rajo bi di ko ci ñaanal yàlla télévision bi ak rajo bi yàlla yàlla gën koo kartanal gën koo may daraja ak ndimbal boole kook population bi nga personnel bi nga xam ne ñu ngi ci biir rajo ba di ko jàppale ñi nga xam ne ñoo yore wàllu diine ji ak ñi nga xamante ni ñoo yore wàllu caméra yeeg programme bu mu mënti doon sëriñ baa ngi ko ciy ndokkeel di ko ci ñaanal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum. wa rahmatullahi wa barakaatuhu wa maxfiratuhu mënatuma cee tegati dara lu may ñaanal leen ak feeñal sama kontante gi yow yi rek laa def sëñ Jóob mi def na ko ba noppi lu neex nag dalul doy te fi ngeen bëgg a dem daa waaye man daal lii kontaan na ci ma sañoon rajo yi yëpp di ko defee nii dañ ñu ciy gën a nawe gën cee feddli sunu ngëm gis naa benn baat boo xam ne sax bu baax a baax la boo xam ne bii xale yi sant jaw ñoo ko xaw a yàqaale ba mu niroog ak kuy foo ko teg foo ko teg yow yooyu dañ koy wax ma di leen wax ni leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de layal nanu baat boobu boobu ëllëgee am na yoo xam boo ko bëggee tere sa sa njaboot dala naan lan naan waaye li aayul araamul wala bu araamee yow ginnaaw ayul araamul ku yëngu naa ko nii nii teewoo ko fenn waay ah ku nen ni foo ko teg li nga wax ci baat yooyu muy foo ko teg ku la ko laajati nee ak lu bees waaw lu bees ak foo ko teg ñaari baat yooyu te lu ci ne wax nañ dëgg dañ koy wax waxi wéyu noonu oh, waaye dëgg lëgg waxani gii gone goo yarul ba mu egg ak ci kii booy jàng da ngay jàngaale foogu yëpp point boo foog ni saay-saay dina ci waxe wala mu jëfe ci rek nga bàyyi ci sa xel xam ni yaa déggul waaye tontu nañ la nabi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku la neeti lu bees lu bees nga ni ko xanaa yeesalaat feddali sama ngëm rek ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee nañu mooni mbokki jullit yi maa ngi leen di dolli rek ay lay yu ngeen mën a dëgërloo ba mën a tere loo xam li dañ la naan foo ko teg ayul araamul kon bay li nga wax nee ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ni jaddidoo beesal leen imaanakum seen ngëm hay sukuntum fu ngeen fu mën a toll rek beesalal ku leen lu bees nga ni ko yeesalaat sama ngëm rek waaw boo gisee itam euh, foo ko teg ma tamay faral di digle astaghfirullah mel ni moom doo ngay alxuraan xam naa bu doon sàppee sàppee waaye alxuraan du sàppi du jeex ne nii mu mel ak ni mu baree ak niñ ko sàgganee ñi ko sàggane bari lool di nëbboo ko feeñ ca kenn kuy jéem a nëbb alxuraan rek yaay nëbbutu yow yaay nëbbutu waaye du sotti jër sa jéem a ci dara bëri nañ ko ba tàyyi waaye fi na ne ku mu bëreel daan la ba yàgg benn daje fi ma gën a gëmee ni jullit yi war nañoo daje bu baax di waxtaan mooy keroog ba nga xamee ni yàlla dañoo soxla nun doomu aadama nag bu nu seetloo ni dinañ dellu ginnaaw ndax euh, ñaar boo boo bëggee def dara da ngay wër ba sonn yow yomb ngeen ko wax yéen ñëw ba fii sa morom noonu man mii noonu man mii noonu di yëgle rek yàlla nag bu soxlaa day daal di am rek àjjana ku fa dem koo soxla rek da nga koy daal di gis ak na ko bëgg a gise ba ngeen doyal waaye kenn dem kër moo tax coono amu fa àjjana moom doo wopp doo xalam dee doo jaaxle doo faatu bun yal nañ yéex a dee te bis buñ demee rek yal nañ fa daal dem dëkki fa ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te weeru koor wi ma koy waxee nu di ko ci ñaane kuy ñaan rek li ngay ñaan boole yéene waale ci lii yàlla danoo dajale nun ñëpp mu daal nuy jox benn ñaari baat yu yomba yomba yomb kaar ci ki ko yàlla yombal ci moom ki ki nga xam ne nar am ci baat yooyu yàlla takkal leen juróom benn takkal ko juróom benni garaat yoo xam ne bu ci ne nit bëgg na ci ba noppi te moom la ñuy ñaan ba ba ñuy dee te ko am incha allah bi àjjana nga jëm muy astaghfirullah astaghfirullah toujours damay wax ni waxuma as astafurlah waxuma ko astafurlah man loolu xawma lu mu jàngaguma ko astaghfirullah astaghfirullah dégg nga boo bëggee gudd fan am wér ànd ak ñàkk bàkkaar ànd ak wér gi yaram ànd ak alal am am bu lay bett toujours fu ne wërsëg di la fa jóge sax yow jullit bi gëmal lii ma lay wax bu ma gëm sax man waaye na la gëm ni alxuraan la faxul yàlla moo ni man ban toogee moom mu ni faxultu maa wax yàlla ni leen istaxfiru na ngeen sàkkoo jéggulu seeni ñaawteef di leen ko yéggalu laxa yàlla istaghfiru rabbakumoo rabbakumoo yooyu mooy yàlla mu ni dileen leen yéggalu seen boroom ndax innahu naka moom kat kaana nekk namu sama fóore ja nga xam ne ci laa doon jànge naxwu boobu ñu di ko wax grammaire defe naa ci tubaab nee na ma woon fiil boo ko dee firi te faayil ja nëbbu boo koy firi da ngay mel ni kuy walis da nga kaana nekk na waaw noonu ngay wax innahu naka yàlla mu mu ma li leen wax yéggulu leen ko te mooy waxkat ak noonu kaana nekk na mu koo xam ne kii xaffaaran ab yégalaakoon la kon nag mu ni istaghfiru sàkku leen a jéggulu rabbakum seen borom ndax na naka moom kaana nekk na mu xafaaran dib yégalaakoon boo ko saxoo rek te muy dëgg sa xol foo toll xamal ne amatoo bàkkaar bu mu la tax di waddaka daal nag di ciitaru bu ko defee yursili sama aleykum midraaran ñaara ñaari maqaama yi ci des yëpp foo dégg mu ne wa rek am la nga doon ñaan ba bari lekk ba xamatoo nooy def mun la wa yumdidikum boo bëgg loo bëgg mu ak doom ak xaalis ak wér ak wërsëg wu yaatu lool ànd ak njéggalug yàlla wa wagga ko gis rek dal naan loo ci bëgg rek yéeneel loola dugalal ci biir boo amee fulen nag boo koy tàmbali da ngay far yéene waale lépp benn yoon yëpp ay ñëw waaw di fedd lii itam lii bàyyi jóob sekk doon wax maa ko ko sant ko gone yëpp mën nañ ko waaye fii dat bi yàlla wax ni moo may waxal lii fii yàlla jeexalu ko kenn mënu ci dara nde ñoom yëpp a ci yam ku ma nii nii bu ma bu ma yóotu kii kii moo ko yóotu woon it mu fi lu ñu mën a dégg kon nag luñ fi wax ak luñ bëgg a wax te mënuñu ko yàlla mi nga xam ne moo am te xam te sañ te man tey def lu ko neex yal nañu boole ci ñi nga xam ni guddal na seeni fan na xiir leen ci bokk boppam nangul nu sunu jaamu yàlla gi dimbali nu ba seytaane bañ noonu not bon yàlla bu ci kenn yàqule ci barkeb alxuraanul karim yàlla nañ ko yàgg a fekke rajo yëpp nañu feddali seen gëm ak seen bëgg yàlla di def nii deele nañuy yéen waa rajo yi dee leen def nii ku ngeen dem dem ci moom defal ko nii tiyaaba ji ngeen fay jële moo ëpp rajo bi ci boppam te itam dañ leen di ñaanal nii nag damaa kontaan ba xawma lu may wax sax waaye yéen ku ngeen ko defal mu def nii wax dëgg yàlla maa ngi leen di baal àq te di leen baalu di yég ñaan yàlla yàlla nañu jéggal suñuy ñaawteef ak suñuy bàkkaar bijaahi muhammad sallallahu alayhi wa sallam audu billahi min alsheytaani irrajim la hawla wala quwata illa billahi alali alazim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in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 تغننا بها عن رحمة من سواك اللهم صل على محمد وآله وسلم أف